alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah يا أيها الناس ارجعوا إلى ربكم دون بكن نول غملين سيدي بار أما يا irjaa ilaa rabbikum dun mi kenn ndoo la gëm leen Sidi Baara xamma keroog bu pare dem xaybu ba di sufuraat yal nang fa teew jox ñu yónneen Sidi Baar am na mbot reer tere nit ñi reer te moom dootul reer xamru laay lu ngeen ci maan siidi baara xamma kullu nafsin saayiqatil mawti yaa ayyuhan naas armeel këram doo la leen siidi baar amma ne garab ak dee moo de ñàkkaa juddu déegi moom du jaas doo gis boppa geen ba ñëw naa sidi baar am mana mo jaawul leen ma murit sa diix bi baaba yaasin cubbu tiijaan baa nga eliina sidi baar am mana ko samedi ja ca min wi ba baabay toll ci sukuraat haatif ba daw téléphone yaa ngi yàlla nangu. waaw man de danañ ma waa Paanaata Njaay mm. waaw eh, ñëw fii pour seen Niassène ñëw ci siyaare bi ni ñu ko waxee ku fi ñëw daal sa aajo faju man nag maa fi njëkk a ñëw 1951 bi bàyyi di toj xàll bi fii ñu di ko wax kër xayre boobu daa fi njëkk a ñëw ñëwee xàll bi metti lool booba lekk bariwul rab wu dawaan ci àll bi ci kër xayra gii dañ lay dàq ba jàpp ko rekk dal di rey bukki rek lañ fi lekkut waaye lu bukki lekk nañ ko fii ci kër xayra da nga bi ñu koy toj kooku eh, kooku mooy Alaaji Ibrahima Ñas waxoon na ko nag na dëkk bii dëkk fajukaaju xaajo la képp ku fi ñëw sa xaajo dina faju waxoon na ko yàgg na ko wax moo tax ala kulli ku fi ñëw tey moom sa yàlla dana ko faj yal nañu yàlla dimbale yàlla walluñu wàll wattuñu aar ñu mosuñu ci bépp musiba balaa te ñu ngi ñaanal yàlla xalifa bii fi nekk yal na ko yàlla gën a dimbale mooy ki wër wattu ko aar ko mosu ko ci bépp musiba balaa imaam bi Cheikh Cissé yal na ko yàlla dimbale wala ko wattu ko aar ko musul ko ci bépp musiba balaa Cheikh Maay Cissé Maay Cheikh Maay Cissé yal na ko yàlla dimbale Cheikh Maay Niass yal na ko yàlla dimbale Baba Lamine yal na ko yàlla dimbale njaboot ak baay gu mag googu ñu ngi bëgg a si nag waaye yàlla na leen yàlla may wér wattu leen aar leen musal leen ci mépp musiba balaa ñu ngi ñaan yàlla na képp koo xam ne ngi nga ci dëkk bii nga xam ne dinga maam ànd ak yar ak teggiin ni ko Baba Lamine waxee woon rek ku fi ñëw daal bu soobee yàlla su sekkee ne sa aajo fajuwut e mu ne nga dem nga nga poñe ko ñuy raas déem nag moom nañ seetaat seen bopp bon nañ bàyyi raas dém bi fële tafukat yi nañ bàyyi tafu fële ku daan tafu boo ñëwee fii ñaan yàlla ñibbi da nga xam loo xam di nga mosoo ko gis ci àddina moo tax ma ñuy raas déem nañ wàññeeku ñoom ñëpp nañ tuubee fii dëkka tuubukaay ak nii fii ku fi ñëw pour yàq da nga yàqu ba àddina tukki wasalaamaaleykum wa rahmatullah yaa ayyuhan irjoo ilaa rabbikum dun bi kenn ndoo la gëm leen si di baar amaa yaati irjoo ilaa rabbikum dun bi kenn ndoo gëm leen si baar amaa keroog bu pare dem xaybu ba di sufuraat yal nan fa teew jox ñu yónneen Sidi Baar am ma ne dee ci reer tere nit ñi reer te moom dootul reer xamru laay lu ngeen ci maan Sidi Baar xamma kullu nafsin saayiqatil mawti yaa ayyuhan naas armeel karam doo la gëm leen siidi mbaar amma ne garab ak dee moo de ñàkka juddu déegi moom du jaas loo gis boppa gen ñëw naa siidi mbaar amma na ko jaawal leen ma murit sa diix bi baaba yaasin cubbu tiijaan baa nga yelli naa siidi mbaar amma na ko samedi ja ca min wi ba baabay toll ci sukuraat hoo tif ba daw téléphone